Cerno nena wa nuhbatu ahmin fi abduru góor gi ne lom ridwaan wa nu mawla um azimun Cerno nena wa jaun bal aimatuna sang bi sururun fi خير شرنا لنا في أعاشر إلا لا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله هي العليا صدق الله العظيم بولن غيسي جتاي بي نمو رافتي سال خامنا سونو بس بو ماك بي نيوتينا بس بن لا موي بسو بامبي لور بسو ديبارتمان دو فيسك بسو سنغال واي بسو ادنا ييب موي بس بي ني خامني سونو باي بو باخ با لان كو جاكليلون تي كان تي مبوكم يو باخ جيتا تي كان Thierno Bachir Tall bu baax mi nga xamante ne mooy bàyyu bés bi bésu kan bésu Thierno Djibi Ousmane Ba doomam bii mu bàyyi fi muy xalifa bi di Thierno Amadou Ba ànd ak rakkam ànd ak taalibe yi ànd ak mbokk yi mal bés bi nag di oote nan daa oote jullit yàlla yi bés bi amul tiijaan amul murit amul xaadir amul layen amul chrétien bés bi ñëpp ci bokk ndax góor gi noonu laa dunde moom dafa gëmoon ne doomu aadama doomu aadama yàlla moo ko sàkk

tubaarkàlla macha allah diine jëpp benn la waaye tarixa yëpp benn la mu jël na ki nga xamante ne moom mooy xalifa Cheikhna Ibrahima Niass tuddee ko nag bis bi nga xamante ne mooy ànd ak i mbokkam jóge Kaolack ñëw fekk si deretam mbokkam ci diine kon bés baa ngi noonu bu ko kenn fàtte oo na nu ñëpp oo na nu jullit ñi oo na nu bambiloor oo na nu ñëpp nan ñëw ci bés bi tubaarkàlla macha allah bu ko defee nag nu gën yaatal nag joxe kàddu yi ku ci nekk oote. ak ak mu koy ootee ci bis bi yan ci yàlla def jàmm ñu àgg ci ak jàmm daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye nag dañ ko parrainé ki nga xamante ne nag mooy maire Bambilor muy monsieur le maire Ndiène Diop nga xamante ne yàlla moo dogal mu nekk ca bopp ba ak monsieur le ministre Omar Gueye nga xam ne bis bu ba at mu ne dasee ñëw def ca la mu ca war a def taxaw na mu ca war a taxawee. di wax ne lii du guléet te li ñuy def ñu ngi koy defal koo xam ne kii ku ko manal boppam la euh, Thierno Diouby. xawma ku ko xamul waaye waa Mbambilor xam nañ ko euh, xam nañ ko xam nañ njabootam euh, ndax yàlla na yàlla di yokk leeram sa aljana di wax ne nag waa Mbambilor yëpp ñoo tax ñuy wax nañ génne néeg yi jox ko gan ñi ñu dëkke ndax loolu dañ ko daan def dañoo am aada di ko di leen ko wax rek mais xam nañ ne loolu ñuy leen di sante ñu ko so euh, di sant nag waa kër Thierno Djiby gépp Eh, di wax ne daal eh, ñun pare nañu pour képp kuy gan ñu teeru la teral la eh, ñu ngi exhorté sunu mbokki chef de village yi bëgguñu benn chef de village tardé ko maire yi si département yi ñu ngi jox seen invitation honorable député Ndiagne Diop mu kenn ku ne mu àgg sa kër jox la sa invitation teeru la teral la ndax ñun ak Thierno Djiby teraanga moo ñu boole mm. teraanga jooju nag yàlla na yàlla yàggal ko te teraanga jooju waa këram njobootam feddali nañ ko si biir dëkk bi ba waa dëkk bi am nañu fu ñu leen teg ndax ku fi sa bàyyi bàyyi la nga fa la nga bàyyi woon wàññeeku bul xelaat ne sa bàyyi ko def yow yaa ko wàññi kon bu ñu fi toogee lii ñu doon lii góor gi doon def ñu yokk ko amuñu lu leen sant leen gërëm leen ñaanal leen yàlla yàlla na yàlla def leen jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah en jetti joomiraaɗo joom baɗe e baawɗe baɗowo ko foti waɗande foti waɗa no foti taw waɗiri kono fotiri kisal ñiiɓngal e yurmede yaañde yo gone nulaaɗo ɓurɗo windere jotto kala dewɗo moƴƴere haañol ngu padangu gona kay to bandiraɓe juulɓe woni tigki koɗo wonno alaaɗo yaano ñalawma men arti bela ceerno amad tidiane ceerno djibba khalifa bambilor bela men arti ziyara ceerno djibi ousmane daoud mo bambilor walla mo agñam ñande nogas e jeegom lewru colte hitane ujune ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗo ɗo bambilor sikki ala ko weltare mawde itti min ha caggal leyɗele artiri min wawde hawrude ngal ɗo teddugal nde wannoon baɗanteɗo o ene fotiri hono noon ceernama tidiani ceen jibba khalifa bambilor nde wan noon ko dañƴo renda o wiɗeɗo golle alay e sago teddinire e galle cheikh oumar al fouti woni ceerno basiru mo ganduɗon kono noon so tawi ɗeɗo golle mbaɗama sa teddini galle cheikh oumar sa yejjiti galle mouhammad saidou basiraji dine way kono defde ñiiri wasa wadde hen lamɗam ni wadde teddiniram ɗum ceerno mahamoudou dialalu dine wadde so tawi ɗum ɗon foof ɓenni ala e sago so ɗum ɗo yonti wawa innidede yimɓe ɓe foof kono wooda innaɗo goto foof yiito hen inde yiito hen hoore muɗum yiito hen teddugal mum yiito hen neɗɗagal muɗum ko ɗum waɗi o teddidiri ɗum galle cheikh ibrahima nias woni ceerno mahi khalifa nias teddinira golle baɗeteɗe ɗe so tawi ñande hen yonti dendagal heddiɓe goto foof ene wawi yitade hoorum ko waɗeteɗo ko dendagal dairaji alfawsou wan nadiati to gone nder windere nde pop ina batti hakkillaji eko waɗete ko so gueno jaaɓi kadi ma kawri hen e anje tan jurnade e ndi rawane nde corona o heewi caɗele nde anjemo wasde waɗede o waɗi ɗum koye nder karalle kese ɗe aduna o foof wawi jeeyede heno wawi yaadu heno hanirindani ɗum noon ko min jurnotako min padat tan hañede nogas e jeegom min gaare enen fof ndenden golle ɗen no hannirta ndani ceernama tidiani ceerno jibba khalifa bambilor gueno jarama a jarama komin garata ɗo joni komin majji woodi momin kawri min mbimo amin namno galle ceernama tidiani ceerno jibba khalifa bambilor o wimi annda galle o de kono minani ko moƴƴo ñu ngi yëkkati ay kaddu yu tukkee ci suñu làmmiñ waaye ma nga tukkee ci hadaratul malikiya fa tabarakallahu ci ndigalal cheikh mouhamad seydi aboubacar sy محمد المنصور خليفة جنرال دي تيجان أيضه الله ونصر أت مجد ميبال نيو نيو نيكا تي بيغو شر فتبارك الله ووتو كفي وخين لا صح واي نيوم كين مون لين ووتو واي فتبارك الله نيو نيو في رك فدلي سونو كولري كيغا خامني تيرو ليبم فتبارك الله فاستكو ديغنتيم اك شيخ سريج عبد العزيز الامين جار مو في مو اندك خليفه بي mu ngi rafet ba tay ji di wax ne rek bés la bo xamne bésu ñaan la te jamono bi jaxasoo na mag ñi lañ do lañ ñu bëggal yépp ndax bëggal nañ ko suñu bop mag ñi lañ ñu bëggal moy mucc ci lépp rek te yonent bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam addu'a iza amma nafakh julli dal galajam moy ñaan te ñëpp jaaxle kenn la watul motax way juru cerno cerno usman Jibril Ba cerno Jibril usman Ba fagul ñu lu reuy li waye mu jóge fi domam ju bax ji wutu ko nak la fi bayam bàyyi won ak mag mu am ci ndigal na Thierno bashir bi nga xamne tay moy suñu sëriñ ñun ñep fa tabarakallah ndax suñu silsila Cheikh Alhaaji Umarul Fuutiyu la fa tabarakallah mu fagul ju bés bu reuy ñuy ñaan yàlla kep kuy jullit nga tew ca bés bi nak bésu diine yep la la bay Abdoulaye wax naan ñi wax naan Touba ak Tiwaawan ñaari dawla lañu fii dawlatin te warul yéen ñi xam nangeen leen wax nañu noppi seen dawlu jiitu na tey loo bañ bañ du fi jóg waxal boqatiku yaa malxuunu yaa xëtt xol Touba ak Tiwaawan ña seen jaamal ak canaba kazaaka laay yéen wa njaasaan kum ci doon teralal moo tax cerno jël bés bi nag jagleel ko at mu jot kenn ci këru diine yi pour la fi mag ñi bàyyi woon rek loolu la fi indiwaat kon Thierno ñu ngi lay ñaanal yàlla bés bi ñu ngi ñaan yàlla ñëpp teew ci mu jagleel ko nag ay kilifa te innal ibada lillahi isa aradu aradallah léeg-léeg gars yi naan ñëpp yem Thierno Jibril Ousmane ba dafa mën a yem ak ñun munul ne kon fa tabarakallahu eh, sëriñ bi nee na mi ngi ñaan képp kuy jullit moom xalifa bi nga teew si fa inchaa allah te loo fa bëgg ñaan ko fa yàlla dina ko def ndax bésu ñaan la zikrul ilahi lil qulubi xuutu in lam taxish bihi fa hiya tamuutu day delluwaat ci ala bi zikrillahi tatmainul qulub mbokki jullit yi mbokk réew mi mbokk bitim réew ñu bokkal réew mi ak kilifa diine yëpp nag jiital ci waa kër yonent bi salaay salaam ñu leen nuyu di leen ndokkee di leen fàttali sunu bés bu màgg bi nga xam ne bii mooy fanweeri at ñi di ko def mooy bés ban buy am Bambilor samedi 26 février lay am muy ziyaara annuel Thierno Jibril Ousmane Ba ku koy defal doomam bu tedd bi Cheikh Ahmed Tijani Ba bi nga xam ne li ko ñor mooy diina ji li ko ñor mooy mbokkoo bi defar ñu ñëw ñaan ndax li fi jàll bari na ñuy ñaan di ko gis daaw mbas bi la woon kenn mënta génn ren ñu def ko ba mbas bi wàññeeku ñu mën a dajawaat kon nag bésu ñaan la bésu fajub aajo la moom nag puso la moo tax mu tuddee ko Cheikh Mahi Ibrahima ñas pour wane ne kilifa diine ko ci jël keneen ki ci des la mooy Seydina Limaamu moy cheikh ibrahima nias moy mam borom touba moy seydi haj malik moy keur par keur pour baña lim ndax ku lim do matale mm. motax ñu wax ni ñep nañu ñew julit ak kudul julit nak ndax ñëpp a bokk réew mi te ñu ñëpp ay jaamu yàlla lañ puso nag day ñaw waaye puso pour mu ñaw il faut mu am fiil fiil bi nag mooy yéen ngeen ñëw ñu ànd doon ñaan defaroo mbokkoo bi dajawaat ko waxtaanaat li am njariñ ndax nag thème bi mooy alxijra ilallahi dañuy dellu ci yàlla mais dellu bu rafet xam ñooy ñan nu ñu war a taxawee nu ñu war def doxaloo ko boo ko rafetal mbokk bi ànd ndax àdduna yàggul wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Thierno Ahmed ba ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool Seydi ba te wér ndax ñun ñi jigéen ñi ànd ak mom dañ koy ñaanal rek mu fi yag lool te wér ndax bu fi yàggee rek inshallah rabbi dara dootu ñu réer ci suñu ay diine ci suñu diggante ak yoonu tarikh Cheikh Ahmed Tidiane Chérif bi ziar bu ziar bu sel bi nak ñëwaat na bés bu tedd bu sel bi su alcorane bi su ñaan yàlla di am le 26 février fe ci Bambilor ñu ci wo daayira Alfawzu wa Najaati yëpp wuñu kenn soppe yi xarit yi am di jàmm yi dañuy jiital ci wote bi nak département de Rufisque bàyyiwuñu kenn képp kuy femme de développement wala ngay taalibe wala ngay soppe Thierno Ahmed Ba bés yaa ko moom sa bés la di ci woo Sénégal yëpp ci biir réew mi ak biti réew mi du ñu fàtte suñu mag fàtte am France fàttewuñu kenn ñi ngi woo ñëpp ndax bés boobu kat tardé ko wóorul ñi ngi ñaan yàlla nag yàlla may ñuy àgg si si jàmm ak salaam du ñu fàtte première daam Adja Marème Faye Sall ñu ngi koy woo suñu marine boobu nga xam ne saa bu ñu defee ziar bi dañ koy woote buñ ko wooyee dina ñëw ñu ngi ñaan yàlla ñëpp fekke ko kenn bañ a wute ci barke seydina mohammed salallahu aleyhi wasallam jërëjëf cerno amadou ba bandiraabe musibe yi tëdd bi en noddi ñalaw mu men le 26 onon nodda e ziar men nde tawno nodduɗo faltaake hay gooto onon fof onon nodda e keewal e peewal ngaron bandiraaɓe nde tawno ceerno amadou ndaarani galo ndaarani basɗo ndaarani hay gooto omo noddi fof on faano ɗumen e laawol joomiraaɗo subahanahu wa taala on woni ceerno baɗɗo keɓe mbaɗi waɗi kedi keɓe mbaɗaani ɓuraa duuɓi heewi fayida waddi enen calmin bandiraaɓe arɓe ɓe fof e wandiraaɓe rewɓe ɓee hay goto en gaccani bandiraɓe musidɓe tedduɓe onon nodda e ziyar men nde tawno waɗi watti waɗi koko wawno bandiraɓe musidɓe tedduɓe gaare e kewal dégg ngeen ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo fi intervenir bés bi nag bés Sénégal ko moom aduna ko moom waaye nag ku jëkk nag mooy ki nga xam ne moo jiite réew mi muy le président de la république son excellence monsieur le président Macky Sall ñu ngi ko ci oo ndax bés bi bésam la bésu baayam la bésu waajuram di ci oo nag première dame mi nga xam ne at mu jot la ca war mu def ko waaye li nga Thierno amadu dafa boole ñëpp bàyyiwul kenn ren nag bés bi ñu jaglaal ko Cheikh Mahi Ibrahima Niass xalifa Niassène macha allah mu jëlaat ko lërëg nag jox ko soxna Seyna bu Mbàkke doomu sëñ Abdou Fatah xam nga rafet na kon Thierno daal bàyyiwul nit démbam mu jëlaat bés bi Omar Gueye le ministre nga xamante ne sàngal kam mu ñor moom bés bi ba bés bi jeex mu jëlaat jox ko ci waaye nag mu jëlaat cër bi nag jox ko monsieur le maire Ndiagne Diop nga xam ne le premier magistrat de la ville de Bambilor nga xam ne bés bi da koo téye ci loo xam ne bés bi sama bésu baay la sama bés sama bésu la mu jëlaat bi moom Thierno Amadou jox ko Serigne Cheikh Tidiane Sy nga xamante ne tubaarkàlla macha allah moom it kilifa diine la di doom ci kër gi mu jëlaat cër bi jox ko ca te Cheikh Tidiane Sy muy xalifa sëñ Mansour borom daara ji sëñ Cheikh di xalifa sëñ Mansour borom daara ji di di ci eh, di moom moom rek di invité d'honneur di ci fàttali di fàttali ko Mamadou Moustapha Jamil bu sëñ Mansour mi nga xam dafa dafa génn àdduna kon loolu bu mu ko joxee bu ñu ko joxee cër bi dafay dafay dafay dafay neex mu jëlaat cër bi jox ko Cerno jëlaanu diini ba doomu Cerno Ahmed Tidiane ba bu mit na Gunaas nga xam ne moom ñoom ñoom ñi nga xam ñooy nawi diine yi bokk ndey bokk baay xam ne tubarkalla macha seen seeni baay liggéey na fi liggéey bu am solo ñii nekk fi ñii dem waaye nag ñu bokk ndey bokk baay xam ne diine ji ñoom ñoo ko war a taxawu mu mu jox cer ki nga xamante ne mooy Ibrahima Amadou Niang nga xamante ne ca Mauritanie nga xam ne Thierno Amadou tubarkalla macha allah adduna yëpp tey boo ñëwee ci bës ba xeet yëpp da nga leen fekk. da nga fekk joolaa da nga fekk njaago da nga fekk ñu jógee États-Unis ñu jógee Asie ñu jógee Amérique ñu ñu ñu jógee France nga xam ne ñëpp dañuy ñëw ndax bés bi mu jëlaat bi jox ko tamit ki nga xam ne mooy al Hassan Niang nga xamante ne moom at mu jot taxawaayam ci kër gi ak taxawaayam ci bés bi tax na bés bu jot rek bésam la kon ñooñ ñooñ ñooñ lañ ko jagleel bu demee ba ci ko gi nag ki nga xamante ne mooy Idrissa Gaye mooy gàmmu gàmmu gi fanaan ak ñun nga xam ne at mu jot moo koy def kooku nag xam ne bu ñëwee Abdou Aziz Gueye xalif ba seet village moo koy dalal mu ca guddi ga nag mu jël ko di at mu jot def ko at yu baree baree baree bare ñu ñaan yàlla ren jii nag yàlla nekk suñu yokku nekk yokku réew bi nekk yokku àdduna yëpp nga xamante ne la suñu baay ba la la mu bëggoon te doomam bu baax bii muy Thierno Amadou Ba bu Thierno Djiby Ousmane Ba dama koy wax ne ko Thierno Ba bu ñëwaatoon doo jekke sa toogaay yaa ngi ci daara yi yaa ngi ci yi yaa ngi ci kër yi yaa ngi yaa ngi jubaale nit ñi yaa ngi defar sëy yaa ngi yaa ngi yaa ngi jox nit ñi ay ay xeewal kon Thierno Amadou Ba gàcce ngaalaama yàgg say rakk nag mu ànd ak rakkam Thierno Malick Ba piloté bés bi ba bés bi egsi fii kon dama ne bés baa ngi noonu ñëw leen bésu tëbb la bésu ñaan la bésu xéewal la adduna yëpp ñu ngi ñaan yàlla ñëw ci xéewal ñu bokk wasalaamatu asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu leen loxo yi ci la nabi rasulullah laxataril moo bi la sabayni walakin man la wa salliyan ya ilahi يخلق لكنه لم يزل يقوم واسما من يرجو من الله أونا خير من